coow li nga am xamante ne am na ko ba am ko Sadio Mané moom la ma joxoon ca coupe monde ba la ma wax ci benn télé bëkk dem ca lañ ko yàqoon ci tànk ba léegi dañ ko sànni coow sénégalais nag mooy xeet bi gën a bon liggéey moroomam ndax yéenewul ku bëggul ko dem sénégalais bëggul ko dem xeet xabtal day am nit ku ne la nangam xasta sab der yow waru koo xas parce que yow li nga def ci football defagu ko carrière bi amu ko salaam yi gis nga ko ignorance boobu ko Sadio Sadio mu dem ba xam ne Sadio Mané du moroomam fa mu daanoo ma ci Coupe ci la xam ne Sadio Mané mi du moroomam daa si gën a jooy sa laa toog lu mat ay deux mois <laughs> kon daal Sadio Mané dafa am loo xamante ne dañ ko ko sànni waaw mais nag kenn mënu ko dara parce que xam nga tax hmm. Sadio Mané man 185 mi ngi leen di dundal 185 hmm? kër mi ngi leen di hmm. fa jàkk hôpital ay kër ñi nga xam ne ñu dara mu leen dimbale jàkka yi mu leen dimbali ceeb lu ne mu koy def loolu yàlla dara mën a seetaan léegi kii def loolu yàlla bu la seetaanee léegi keneen def la kon bàyyi ko dem te ñee def lu bon te yàlla nag day teg ni nattu nattu gi mu koy teg mooy la sëñ Mbay Jaxate waxoon ne la yàlla jox xarit ba cay maxaama te mënu koo jof nattu lañ koy xaymaa te yàlla ba dalaa wóolu ba jox la mbir ya nga mu na toog ma aw ci yoonu mbër ya saa yi na xam yenn yi nattu la na kareet bi moom am na ño xam amuñu ko El Hadj Diouf moo ko dàqoon football hmm? xool El Hadj Diouf léegi boo ko daqoon football téeméer junni yoon. xool ko léegi kon loo gis rek day jàll loo gis day day day jàll El jur lu bon ñoo defañ ko ko saa yu na nekkoon ne lu baax li muy def nii ndax man maa ngi ko njëkk gisee Johannesburg Afrique Sud laa ko njëkk gisee dëgg bët Afrique Sud ni ku baax la loolu laa xam ci moom mais nag senegal yi di ko def lu bon ak di ko def yu ne comme ni ñu doon def ci Coupe bi am na ñoo xam ne dañoo taxawoon Coupe d'Afrique du ñëw. lépp gaa yi gis ko ñoo xam ne dañ doon ñaanlu spécial dafay ay millions pour coupe d'Afrique du ñëw Sénégal coupe du monde bi gaa yi ñoo xam ne Sadio Mané mooy rawaanu équipe bi ñu ne nañ def loo xam ne Sadio Mané du dem ñu a tell xam nga mën naa sànni korte tey nga dem hôpital di faji korte ba wér mais teewul baatin da nga xam ne lii korte la man nga am xol bi metti tey ñu sànn la benn korte moom sa xol bi la daal mu nekk exemple sànni cancer mais cancer bi day wax seetaan léeg-léegi docteur yi gis na cancer la léeg-léeg ñu gis boo fajoo te gëm naa wér lecteur naa duñ gis dara fekk nag dañ la ko sànni mm-hmm. mais Sadio Mané kenn mënu ko dara parce que koo xam ne yaa ngi dimbali ab ab quartier fa mu dëkk ñoom seen seen dëkk kooku te loolu mënu koo jàpp mm-hmm. ndax yàlla nee na boo bëgg yàgg yàlla dëgg-dëgg del jox ñam lekk moo mm-hmm. ko fanaanee julli jox nit mu lekk bés moo gën fanaane julli boo na julli téeméer rakka di wax lu bon di jëf lu bon yoroo dara jox nit mu lekk moo ëpp doole loolu moo tax Sadio moom jàmm rek la yam